man sama genre ci laa bokkoon du ñu ay du ay complotistes parce que c'est l'OMS qui était derrière ces vaccins là pour deux raisons soit d'abord euh, les caisses de l'industrie pharmaceutique ba noppi euh, euh, affaiblir euh, les les les les les les populations mondiales parce que ñoom ils ont un projet de réduction de la population mondiale. loolu bi ñu koy wax ñu bëri gëmuñu ko mais aujourd'hui les Illuminati à travers le nouvel ordre mondial li ñu gëm mooy les peuples métèques doivent disparaître de la planète. donc président Macky Sall nekkul ci leneen lu dul loolu aujourd'hui nit ñi dee yoonam nekku ci maanaam sénégalais yi di dee nag ay weñ nga xam ni moom euh, dina mën a vraiment ñoom ak ñoom àndal xam ne léegi population bi au niveau du Sénégal nekkatul dans une phase de croissance mais loolu da koy arrangé parce que ñoom ci loolu lañ nekk donc loolu boo ko waxee ñeen ñi xamul enjeu yi nag uh-huh. mën nañu mais kili mi wax c'est énormité mais dama ne la li ñu bëgg bi tey mooy ñun ñu dee ñoom ñu dund

ay contrat de prestataire te ñëpp xam ne ne dans le code du travail loolu amul fenn benn exploitation la boo xam ne du rek si hôpitaux yi mais même xam ne ñoo di liggéeykat yi ñu ngi koy dund tey ñooñu nga xam ne dañu signé woon euh, euh, hôpital bi tëj na c'est des c'est des personnes yu nga xamante nii ñu ngi doon gagné foofu noonu seen vie tey mun nañ jàpp ne ñoom ñëpp dañu nekk en chômage waaw mais c'est là euh, où la bas blesse. bah ci yoon ay ay prestataire la ñu. te prestataire amul benn garantie. c'est ça euh, loolu euh, li ñu war a def kay mooy ñoom bi ñu def seen plan de déménagement boobu contrairement à <laughs> Dame Mbodj. Dame Mbodj déguerpissement en tout cas Dame Mbodj ni mu expliqué bu fekkee noonu la demee man. non moom ma je bu dee noonu la demee. noonu la demee du déménagement. non non moi je pense que moi je pense que. moi je pense que man honnêtement. bon renseigné wu naa tuuti parce que man aussi. Mhm. bon dama yor société de presse damay renseigné wu si seet li may bind lan la. Mhm. et honnêtement. effectivement euh, je suis plus en phase avec Aïcha ci li mu wax parce que am na ñeneen ñoo xam ne bokkuñu certainement les mêmes euh, informateurs mais c'est sur que li Aïcha wax yëpp franchement je le tiens à 99 pour cent. Mm-hmm. maintenant après euh, lenn kese moo ma jaaxal mooy mooy mooy mooy xaa euh, yeneen trois hectares yooyu. ana lu taxoon ñu war koo mën a jaay. man foofu rek laa la la ak ak ak pour li si des nag après ça se discute est def nañu erreur ci ni ñuy déménager affaire bi précipitation bi lan moo ko waral loolu ci cadre organisationnel bi. mais soo génnee 3 hectares yi dootoo gisati enjeu bi enjeu bi 3 hectares yi. mun na nekk waaw d'accord naa mais xam nga. ah hectares yi mooy enjeu bi. dañ ko war xoolal ñu ngi koy travaux. xoolal man wàccee man man su ko ak loolu richesse u loolu patrimoine u patrimoine u hôpital bi la waruñu ko woon jaay parce que tôt tard dans l'avenir mën nañ ko ah. exploiter ci leneen je comprends pas pourquoi cette précipitation là ñu bëgg absolument euh, jaay trois hectares yooyu ba pare li daam wax dëgg la sous son suuf c'est même pratiquement évalué jusqu'à c'est même évalué jusqu'à pratiquement trois milliards mm-hmm. Mm-hmm. trois millions le c'est énorme man li ma xalaat te mënuma ci teg loxo mooy li ñu wax lañ ko jaayee ah li ñu wax lañ ko jaayee loolu mooy chiffre officiel bi. voilà c'est comme. Euh, terrain terrain liberté euh, terrain. Euh, kii Aliou Sow yow bu ñu la ko jaayoon à trente milliards. même boo amul banque boo dem mu jox la. <laughs> trente milliards mais c'est une évidence. <laughs> non banque boo dem. non ni leen ci lu gaaw. mais nga ne ko trente milliards lañ ma koy jaay. mais banque boo ko fii Sénégal mu jox la. banque bi banque bi bu ko yoru sax. kon ñoo la gën a xam ne jaayewuñ ko trente milliards. banque bi bu ko yoru sax <laughs> jaral na ko mu dem lebi ko. mais moom pour mun ko jox nit. non parce que xam na après Euh, parce que ma nekk ci euh, di di di di benn dossier. si si suufu euh, camp Leclerc bi. bu ma nekk di gëstu. ma gis ci yu ma yu ma jaaxal. yu yu yu doy waar ni ñu ni ñu ni ñu defee ni ñu defee ni ñu jaayee suuf si. ak ñi si jaar yëpp. moo tax bi ma déggee histoire u le Dantec le Dantec bi. je pense que ni c'est la même chose. non. mun nañ jaaye mbir mi dix milliards exemple. <laughs> mais affaire bi valeur bi cinquante milliards. léegi quarante milliards yi exemple la gars yi ñoo koy seddoo ci seen biir mais officiellement mbir mi dix milliards la ñuy bind ci kayit après les des ñoom ñoo koy paasante di milliardiser ay ñoo xam ne dañu nekk ci réew mi euh, juste parce que dafa am ay côté yu ñu bokk pour loolu parce que man wax dëgg yàlla man gisumoon bi tey ana lu tax ñu mën a jaay suuf soosu suuf soo waroon nañ ko mën a garder ah, parce que mën l' avenir même bu fekkee ne Aïcha li mooy yéegal hôpitaux yi def ko euh, mun na dem ba six huit étages sur euh, quelques hectares benn deux wala trois hectares mais nañ koy yéegal mu am espace mais ba tey dans l'avenir comme ñun suñu population bi dafa nar a gën di yokku euh, médecine dafa gën a yaatu technologie bi dafa gën a yaatu waroon nañu mën a garder terrain boobu exploiter ko pour que dans l'avenir ñu am ñu ci mën a def mhm. waaye lu tax ñu mun ko jaay ah, cette somme là bi ñu wax officiellement moom lañ ko jaay même bu doon cinquante milliards waruñu ko jaay parce que Sénégal dina jëriñu par rapport ak position position hôpital bi fi mu nekk euh, euh, position suuf soosu waroon nañ ko mën a téye pour mën ko exploiter lam l'avenir kon amoon na bi am na forcément njuñ njaaj bu doy waar boo gisee les hauts fonctionnaires là les gars là mhm. ñuy jékki-jékki di nekk milliardaire du jour au lendemain yow rek nekk milliardaire c'est à cause dañu nekk ay fonctionnaires nekk am ay facilité de signature am nekk ci ay positions yoo xam ne ñoo leen di permettre ñoom il suffit ñu influence tuuti rek wala ñu teg seen baat wala ñu joxe seen accord ci benn affaire ils se retrouvent avec un ou deux milliards seen àdduna seen àdduna dem euh, alors que ces gens là jusqu'à la retraite du ñu gagné cinq millions de francs CFA ba ba ñuy retraité c'est comme ça qu'ils s'enrichissent yu demee noonu la mhm. suufu liberté ni camp euh, Leclerc bi li fa nekk ci ci ci ci bés ñu ko génnee fi tey ji nii ci dossier mais Sénégal day toj parce que xam lu tax mhm. que li fa nekk ci ay mbir ak ay nit ñi laal ci loolu ak ñi si nekk c'est même la peine dëkk bi moo bëri ay ay ay sàcc. ay njuuj ay njuuj njaaj loolu dañ ko war a lijjanti. Mm. te daam man je ne peux pas imaginer que ni Macky Sall soxor na ba di def yenn yi moi je pense que ni dañ leen di tuur lëndëm dañ leen di tuur lëndëm Macky Sall il a 10 milliards quand même de de de de de boo xam ne comme ni ko Idrissa Seck daan waxee un président la République bu ko neexee sax mu jël 10 milliards yi mu taal ko il en fait ce du loolu man pour man gars ñooy ay dóorante la ci biir dañuy naxante ku nekk yaa ngi jéem a xëcc loo moom mais gëw mais loolu moom loolu mais d'accord

xam nga. est-ce que un président de la république. un président de la république. mun na xam ne diw Damboj ministre lëm la. wala Damboj directeur am la. muy moom un président de la république laa xam ne président bu na xamal na ko ay njuñ jaaj. mu xaar xëy na bu élection yi jotee mun na ko demal dépensé ma ci campagne électorale demal jàppaleel ma sama sama ay nit parce que moom xam na ni. mais mais loolu ce serait extrêmement grave. bu dee loolu mais man ma lu am non non non non non non non non waaw mais <laughs> eh, Aliou Sow li ngay wax ne yaa gën a xam ne loolu la Macky Sall nekk suba ko déet déet yàlla xam na ko li muy wax nii daam li muy wax nii daam waxuma Macky Sall noonu lay gérer réew li mu wax nii noonu la président Macky Sall di gérer réew li mu wax nii loolu moo am gis nga sa dossier dans l'histoire dans l'histoire du loolu ay rétro commission li am ah, nii du am après loolu mooy dëgg après euh, bi tey euh, euh, directeur de <laughs> quelque part yow di nga après di nga mën a dem bu campagne bi jotee nga <laughs> am ñoom. en tout cas loolu moom président bu ko mën di def. non dama lay wax rek xam nga mais Macky Sall gëw dina toog ci yooyu di soxla. du doon ah, mais kon yow pour yow yow pour yow lan mooy raison bi kon. non non man raison man pour man pour man gars yi gars yi non man ko rek c'est important. non man. pour man <laughs> mooy raison pour yow kon non non góor gi billaahi sànni ma xeer non c'est que c'est que dóor yooyu moo bari Sénégal man man Macky Sall pour man man xam na ko xam na ko waaw xaw ma nag ndax mën waaw léegi lu tax mënu ko jeexal déet man xaw ma ko léegi yow loolu sa problème da ngaa xamul ndax mooy question bi voilà mooy question parce que man man président de la république man Macky Sall moo ko jiite man président non non jiitewu ko njuuj njaaj bi ngay wax non jiitewu ko moom moo ko non mënul nekk xamul tax c'est extraordinaire tuuti rek. may ma mhm. tuuti sànq dégg naa la nga wax ba dugg ci camp Leclerc niñ ko jaayee. Mhm. mais yow loolu exemple la woon waxaar waxaar damay wax waxaat nga tamit ba tudd Liberté 6. maintenant nag lan waaw ak say investigation yi nga def information yi nga am. Mhm. léegi lan nga ñu mën a leeral ci suuf bi biñ ne jaay nañ ko muy le littoral de Guédiawaye. et la forêt classée de Mbao yi nga xam ne jël nañ 37 hectares. waaw c'est normal mais déggoo li mu la xanaa. Sénégal xanaa seetloo ñi fi am borom alal yëpp c'est la haute Sénégal dafa am benn noyau nit mille personnes te làmb du si Macky Sall kese de. ci mhm. Abdou Diouf ba tey à chaque fois il s'adapte ñoom ñoo ñëw ñëw téye réew mi matuñu mille personnes wala si la ñuy yem wala du ko sori ñoom ñoo téye réew mi. ku ñëw mais bu limi foncière bi nag quand même. non ngi commencé. Mm. avec les libéraux. Oh, waaw mhm. waaw 2000. waaw ah, Abdou Diouf waaw mais ñun ñun xeex nañ ko côté bu ne Abdou Diouf waaw suñu génération on était de jeunes étudiants mais Abdou Diouf opportunité dañ doon wax ni wax dëgg yàlla def fi dara extra mais ni gars yi pàccoo suufu Sénégal parce que parce que avant ni gars yi pàccoo suufu Sénégal non parce que sous le régime socialiste quand même daam xam lu tax xam lu tax parce que amaguñu woon yenn opportunité Sénégal attractif lu woon jusqu'à un certain point ba nga xam ne euh, euh, niveau de vie bi yokku na euh, ñi ngi seen adduna bi ñi ngi ñi ngi bëgg ñëw Sénégal mhm. donc il fallait de la place te am na yenn opportunité bees VDN bi ñëw na mhm. béréb yooyu c'est des béréb qui sont qui sont attractifs tout simplement loolu moo tax période loolu Abdou soxlawu ko woon su ko soxla woon dina ko def parce que ñoom am na yeneen yu ñuy def mais ci yeneen fànn lañ ko defee defee ñu ko ci suuf defee nañ ko noonu mais ñan ñan ñoo fa nekk dëgg la ah waaw jeex na ku nekk rek sa bërëb ak say période selon la situation c'est une question d'opportunité suuf agasa point léegi voilà ñu wax ci en fait euh, euh, monsieur Samba c'est vrai fi gën a indi bokk na ci wàllu mbay mi mhm. rawatina euh, coow li des ci soble si waaye nag citoyen nga te mhm. nit nga mhm. dañuy am malade dinañu feebar danañu faju situation bi nga xam ne am na hôpital Dantec aussi bëgg nañ ci dégg sa point de vue yow waaw foofu di la gërëm Euh, Aïcha li ma ciy wax du bari parce que man je ne suis pas fort en politique politique moom euh, comme ñoom daam niñ ci mel di ko maîtriser ak noonu man ma ci noonu mais nag mën naa ci joxe sama argument ah, tuuti parce que euh, Sénégal tam war na nañu dépasser toujours di endetté hmm. di jëli di leb bu ñu lebul rek bu ñu mën liggéey mhm. loolu dañ ko war a dépasser tout il faut nag ñuy demee ak suñu ay propres moyens hmm. parce